góor gi toujours suñu jógee ci Ibrahima Ndiaye di responsable communal bu Pastef boobu dañuy dem seetaani benn vidéo bi nga xamante ni fii Adji Sarr doon liggéeyee ca Sweet Beauty Ndeye Khady Ndiaye am na ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko nañu seetaan vidéo bi dellu si waat Sonko moo def lépp sama insulte laa loon mais Sonko moo violé booy Sonko de moo def lépp sama insulte laa loon encadré mais Sonko moo violé booy bi Sonko de moo def lépp sama insulte laa loon encadré mais Sonko moo violé booy kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy ay kàddu yi nga xamante ni Ndeye Khady Ndiaye bi nekk ca institut Sweet Beauté Adji Sarr doon fa liggéeye ne Ousmane Sonko foofu la ko violé yëkkati na ay kàddu nee naa leen nag ñoom Dame Mbodj ñi nekkoon ci plateau yi di def procès nekk wal Walf di wax ñoom Pape Ndiaye yaakaar naa ni kenn gënul fekkee mbir mi ba muy am Ndeye Khady Ndiaye Ousmane Sonko ak Adji Sarr kon Ndeye Khady Ndiaye moo yëkkati xamal ni ko Ousmane Sonko moo ko violé donc du samay kàddu kàddu Ndeye Khady Ndiaye la yéen waa Pastef nag bu leen ko fajee saaga bu leen ko fajee mer dem leen ngeen waxtaan seen leader ndaxte nit ki aussi soo ko bëggee setal te yàlla suñu borom setalu ko moom setalul boppam këram bàyyi ñaari soxnaam vingt une heure heure couvre-feu mu violé ko àndalul garde corps àndalul dara te Ousmane Sonko fu mu dem ànd ak garde corps lu tax àndalul na garde corps en tout cas lu doy waar la. bërki démb bañ ko nee ca ngàpparu garde corps bi mu àndaloon wax ko soxnaan som da ko dàq lu tax mu dàq ko en tout cas war na leen leeral loolu muy kaw viol bi nga xamante ni génne war nañ ko ba tey dañuy seetaan yi yeneen vidéo yoo xamante ni Ousmane Sonko wax na ko. portinya